Rewmi FM Rewmi FM gan gi. Euh, Chérif Samb ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu fay. ngay coordonnateur cellule communication euh, intersyndicale liggéeykatu napp gi ak aquaculture fii ci Sénégal euh, ñoom ñu xëy àjjuma ji banque seen yoxo lu ko waral. Mhm. waaw gravité dafa lalu ci lenn dafa am suñu naatangooy nekk ci Kayar. Mhm. nekk fa ci makkaan ba. doom doxal nga xam ni mooy yoonu code de la pêche. Mm-hmm. maanaam ñun dañoo waat prêter serment ne kon suñu liggéey dafa am loo xam ne buñ ci tënkoo loolu la ñuy def. Mm-hmm. loi bi lu mu tënk ci article trente huit ci code ci décret d'application code de la pêche bi. Mm-hmm. Euh, ni jën yi nga xam ne moom la ñuy napp ci Sénégal benn bu ne nu mën a toll pour ñu napp ko ñu mandargaale ko nga jël lu mel ni tàllaar moom lañ fekk ci tefes ba mu doon tàllaar boo xam dafa sew te matewul li sart bi wax. suñuy naataangoo yi fa nekk daal di jàpp jën wi Euh, yóbbu ko service. Mhm. mairie yi nga xam ñoo jaglewoo jën woowu ñëw wax ba sonn mënuñ mhm. ñu dellu dem waxtaan ak moo le ko napp ñëw yàqate bureau yi nekk ci service ba. ñu ne kon comme loolu mënuñoo xëccoog ñoom ci tefes ga. Mhm. ba set ga euh, su naataangoo fa nekk jàpp ni kon danañ toog bureau mais ku fa ñëw bëgg mandargaale ci kayit bu la mën a may nga jël jën yóbbu ko dem jaay ka. duñ ko bind parce que sarta leen ko may. ah ba ñëwee tamit ci aljuma ja bëgg këyit googu mënuñ ko am. ñu daal di dellu tefes waxtaani ak mool ñu ñëw dellu si ba am lu fa yàqatewaat ci ci biir ci biir ci biir service mhm. ñu toog ba timis ñu fekk si makkaan ba nga xam ne chef service ba fa la dëkk yàqate ko yëpp jël ay bagages am sàcc ko yenn bagages. Mhm. donc ba tax na loolu lañ toog ne kon dañuy ñaxtu naqarlu loolu am ci ci ci Kayar Euh, ba lii am looloo waral tey suñu ñaxtu bi tey ñu nekkoon dañuy banque suñu yoxo kenn du laal dara tey liggéey bi tey. ndax am na leneen lu ngeen ci toftal bu weesoo grève euh, gi nga xam ne amal ngeen ko àjjuma ji. àjjuma ji dañoo yëglu parce que tamit booy naqarlu yëf na nga fexe ba ñëpp yëg. Mm-hmm. defe naa tey comme liggéeyuñu lañ ci toftal moo di lenn jëf yi mel ni dañ naan duñ ko rafetlu waaye euh, yóbbu nañ këyit bataaxal ci wàlli yoon. Mm-hmm. porter plainte ba nga xam ne ñi ko def ay lay wen daañu fa yoon ba yoon mën def liggéeyam. Mm-hmm. ñun loolu lañ jàpp parce que kañ ko def ah bu dee moom déposé na plainte tamit ñun syndicat bi dañuy déposé plainte taxaw waaw loolu lañ jàpp. kon ça veut dire que identifié nañ ñu ko def. waaw ah, mën nañ xamoon dañu di ko def parce que du Kayar gépp a jóg def ko. njott ngeen daal. ne am na ñuy nga xam euh, seen loxoong ci biir. xam nga boo njortee ne diw la rek dangay ngay da ngay daal di tuumaal nit. dëgg la mais am na ñu yeyool xam liggéey ba nga xam buñ toogee mën nañ joxoñ ne diw la. Mm-hmm. buñ même bu fekkee mën nañ koy def parce que lu boo ko defee citation direct ngay def euh, ca tribunal la jëm te fa lañ porté plainte ñu daal lenn constate nañu fii ci ak huissier. Mm-hmm. dañuy porté plainte ka a def liggéeyam dem ne nuus jàppkat la. Mm-hmm. ngeen nekk ci benn département taxawaayam ci seen euh, li nga xam ne moo leen dal ni ah, waaw dëgg loolu dañuy dañuy rafetlu leen. Uh-huh. kilifa gi maanaam ministre bi Alioune Ndoye mm. wax dafa naqarlu ñëpp dégg ko li am Kayar. Mm. Euh, loolu day wane leer ne la mu ngi suñu wet hmm. euh, te tey li ñuy jëfee nii defe naa waruñ cee mën a xam na ni lu yellu la itamit nit ñaxtu ci lim ci lim def nii hmm. rafetlu ko dañ koy dañ koy rafetlu parce que tamit boo toogee sa kilifa nga ne ci leen li mu taxaw la nekk sa wet defe naa da nga koy sant gërëm ko ci loolu. d' accord loolu moom mën nañu ko amal balaa ñoo dellusiwaat ci taxawaayu seen ministère euh, ñu mësoon am benn waxtaan buñ sekk ñu nga xamal ñu ne euh, lii duguleet du bu njëkk ay agent euh, ñu leen di agressé ci seen i poste yu ñu nekk li ni mel loo jàpp ni moo ko waral. du mën a ñàkk xam la parce que ñàkk xam ñun code bi bañ koy tëgg defe naa acteurs yëpp ci participer. Hmm. les deux secteur bi acteurs yëpp a ci participer. Hmm. Euh, genn gi man munu may sax munu ma lay ne lii moo tax parce que def naa fanweer ci secteur bi te mu xew ci foo xam dafa répété wu gis nga ci aan gii nii. Hmm. bañ ci wàllu fanaan lañ toogoon wàllu gestion de la ressource lañ teg li ni mel am fa ñu yàq poste de contrôle ba suñu naataango fa ne noonu la toxoo ñaari at service ba doxul jifeer am na fa bu yàggul ci deux mille vingt bii nii. Euh, nu caaro yi. Mm-hmm. ay 2014 amoon na fi ñu jàpp ay suñu ñoo xam ci biir géej lañ leen wàccee teeral leen ba biir caaro yi dugal ci néeg bëgg leen taal nga xam ni kon te yooyu dafa xew amul kenn kuñ ci tuumaal wala kenn ku dem ci yoon ñu ne diw la ñu jàpp ko tëj ah du wéy nag ñu ne nag loolu mënta dàkk mënta wéy foo mu dàkk. ci biir yoon nag lañ bëgg a taxaw nag ñu mën a saafara lu benn mu bañ a amati. ndax loolu jàpp ngeen ne dina saafara définitivement jafe-jafe yooyu agent yooyu lay di dund ndax dina tax euh, manque de sécurité bi nga xam ne ñoo ngi koy dund mu jeex tàkk plainte bi. looloo loolu moo tax ñun ba ñuy teg suñ plateforme de revendicative am na fuñ mandaagay ne ñun war nañ am indemnité de risque ñun dañuy dañuy yëndoog lii nga xam ne bëccëg laam bu doon guddi nu muy demee. Hmm. bu fekkoon njabootam fa lañ ko fekk ci kër ga keroog nu muy demee yooyu ay questionnement la yoo xam ne ay laaj la yoo boo ko doon tontu xamu xamu xamoo lu muy doon. Hmm, hmm. donc ba tax na kaarangay liggéeykat yi pêche ak seen nekkin ci seen makkaan liggéey wax nañ ko waxati ko ci suñ plateforme revendicative dafa bokk loolu moo tax kon comme ñun déposé nañ plateforme revendicative bi jeex la neuf passé mm-hmm. ñu nekkoon ci li ñu laaj yoon may ñu waxtu wu ñu neex ñu mën a dem grève bu fekkee jubóoñu lii ñëw saamu ci ne ñu ne nañ nañ bone suñu naqar ci lii ni grève ko ci benn fan tey Trapace gis na ba mu nekkee ci benn mbir taxawaayu ministère am mu jàppale mhm. ko ci euh, mhm. mais euh, bu yàggul yéen a ngi doon fësal seen plateforme revendicative ngeen ti tamit ñaxtu ay mbir tey fan la toll plateforme boobule. Euh, ba ñaxtooy tamit yàlla dogal na parce que ba mu mujjee waxtaan dama ne la ñun dàqun waxtaan. Mhm. yàlla dogal na on nañu ci waxtaan ñu ngay nësër di seeti pexe yuñ def saafara yenn yi. yi ci biir kër ga ak yoo xam ne yenn yi dañuy wàlliyaan dem seet yeneen yi seen defar ko. defe naa ba tey kenn déggunu ñu nga cay liggéey. Mm-hmm. parce que bàyyiwuñ ko moom doomu wut saafara dañoo bokk ci lii wut saafara ñu koy defar. Mm-hmm. waxtaan yooyu dàqut donc xam nga kon bu fekkee tey démb dañoo taxawoon jiiñ jox ko ko. Mm-hmm. tey mu taxaw suñu wet di naqarlu ñuy naqarlu ñun. kon ngeen xam ne kon waxtaan a ngay am. Euh, te ñaanal la ñu itam li ñuy nësër yàlla may ñu juboo ba ñu am saafara ci pexe yëpp. kon daal yaakaar am na fu nekk nii. war nañ yaakaar war nañ xam nga li li Njaay naan bu waaxu si jeexul ba di. <laughs> yaa ngi réer de. <laughs> d' euh, <laughs> euh, donc monsieur Samb. du jeex. waaxu d' accord donc mhm. Itrapass fu mu nekk nii moo ngi dundee yaakaar ci li nga xam ne mooy condition de travail am ñu daal di ko améliorer atu deux mille vingt deux euh, ndax li ni mel mën nañ koo xaar ci napp gi ci mim réew ndax jafe-jafe yiñ ciy gis di ko ci dégg amaane na mën naa am. début de solution wala ay solution 2022. napp mi dëgg jafe-jafe napp ci àdduna àdduna bi yëpp la ñeneen a ngay defaree tam dafa ci loolu lañ taxaw bañ amee ledd politique sectorielle bu bees euh, bu wodee tëralin ba ñu war a dox pour mën a dem pour mën a mën a a defar napp mu ñoŋ. Euh, code de la pêche bu bees daal di taxaw ba bien que ñi ngi taxaw bu ko salfaañe mais itamit euh, ay liggéey ngi cay am pour lu tax jën sax dàkk fi. Hmm. parce que am nañu ay. ba pare yu jëm ci ci yéet jëm ci yanka yooyu yëpp am na fi. Mhm. yeneen espèces concertation yi amal nañ ko ci wàllu yaboy gi nga xam ni tam stock partagé la parce que day walyaane mu ma dañ ko bokk. Mhm. Mauritanie Gambie Guinée ak yëpp. Mhm. mais foofu tamit concertation am na plan d'aménagement ba des na pareegul yembagul. mais itam ci ay jëfe ba tey euh, kaaraange war ci mën a bàyyi xel ci deux mille vingt deux euh, te mën a nësër lu ñu mu ñoŋ. ah man de muy dëkk Sédhiou ka nekk Kolda kenn ak kenn mën a am ceebu jën faa saawu saawu ko bëgg. Ah. ñoo ngi doon wax ne dinañ amal ay assises waxtaanee napp gi euh, booba ba tey kenn déggu ci euh, dara ngeen di liggéey ci benn ministère doon tey syndicat ngeen mais xanaa nag dégg ngeen ci dara. ah, ah liggéey boobu itam parce que conseil présidentiel buñ koy wax. Euh, napp mépp la ñuy waxtaanee. Hmm. képp kuy kuréel andi nga say contribution ci li nga xalaat ni moom moo koy defar ci jafe-jafe yeeg ñëpp bokk waxtaan ci la koy defar ak lép ñu war ko tënk ci benn këyit. Mhm. ñun syndicat bi tam participer nañ ci euh, def ci suñu wàll. Euh, document bu man naa ne presque yemb na bien que du man maa koy def parce que cëru ministre bi la. Mhm. Euh, itamit agenda ba nga xam moom lañ mën a ko tenir des na ci président ak suñu ministre buñ ci juboo mhm. loolu yëpp daal ñu ngi ci en tout cas daal boo doon ci benn kuréel te defe naa ñuy am yaakaar ni xëy na boobu buñ ko tëggee. Euh, yenn jafe-jafe na ci na ci am saafara parce que mandargaale nañ ko fa te mën a saafara tudd nañ ko fa nag. Mm. Euh, li ci li ma ci dolli ñaanal kilifa gi ak kum fiy fekk. Euh, bu toogee man am koppar bu ko defaree parce que géej lu koy defar xaalis la de xaalis bu bëri la. Mm. xaalis bu bëri am ba defar ko wax dëgg yàlla. Mm, d'accord wax dëgg amiin yàlla nañ ba defar ko comme ni nga ko waxee ku nekk fa nga mënta nekk nga mën faa lekk ceebu jën. waaw waaw. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Chérif Samb. jërëjëf Elisabeth